وري يا بقن يا دنت كل اليوم قد خيل اي والله يسكي نروي يا تخيلا أم فإي والله يسكي ما أنت أقصف فحقا قيل هي والله يسكي ak lëyemen ak dënno ak melxet ni ray ray a taw bu ceeboo ki ceppal am ñax saaxal gàncax gu ñuy bay dugub ji yaa tax yonen li ci gerte am xaalisit ci say may kulloo xaqun li haala jinneeg malaa way ko na kenn du ko wax ku kañuy way ak ka

tabaraka wa taala bind ci leeru soppeem ba di sunub yonent yal nañ yàlla def ñuy sopp suñuy soppeem mu bind ca leer ga benn jawhar digal jawhar ba nag ne ko na nga xar mu xar ñaari xar mu xool xarit bu jëkk ba xool ko bay bëtub tëy mu tiit ba nekkum ndox muy daw di wéy nee nañu mooy ndoxu géej gi ak ndoxu dex yi fudd boobu muy fudd ak yëngu beeg dal bi yépp fi nga ko gis dafa nekk di sabbal boromam moom géej loo gis mu yëngu ma ngay sabbal boromam walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum amul lu yàlla bind lu dul mi ngi sabbal boromam waaye daal fekk na ñun ñu ko dégg ñàkkul nag ñu ko yàlla xamal ci lenn ciy jaamam yoo xam ne yi ñoom xam nañu ko waaye lépp loo gis ma ngay sabbal boromam ak di ko jaamu ah nee na mu xool genn wàll ga ca des mu xool ko bëtub cofeel sama borom tabaraka wa taala bind ca ñeenti yëf bind ca arash bind ca kursiyu bind ca lawxul mahfuz bind ca xalima ga xool xalima ga nag bëtub tëy ak tiit xalima ga tiit ba ne tàcc xar ngir màggug suñu borom tabaraka wa taala ak màggal yàlla mun digal xalima ga ne ko na nga bind mu ne ko yow sama borom tabaraka wa taala lan lay bind mu ne ko bindal ne laa ilaha déet benn buur ba yeyoo jaamu te jaamu ga war ca ka koy def te du dolli yàlla dara te di wàññi ka nga xam ne kii moo ko bañ illa ana wahdi lu dul man yàlla mii لا شريك لي في ملكي او ما كوبا بقال سما او ما نداي او ما باي او ما كن دوما ام دو جند لنن موتاخ غاني ني محمد صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك سبروم بيغا خامني ياغي ني و جيمي تي دانيو بغ nga خامل نو امين خشبين او حديد او حجر ناخ تي وين لا ndaxte yàlla ji weñ la wala bant la wala doj la sama borom jox ko tontu ne ko waxal ne qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuan ahad qul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci tontu ñooñu la ne leen huwa luy mbir tey mbir allahu samadu allahu yàlla mooy buur bi nga xam ne dalewul fenn yemul fenn te mooy samat samat firee nañ ko ne mooy ko amul biir samat firee nañ ko ne ku dul wuti kenn di sakku ndimbal ci moom te yow ñëpp a ngi lay wutsi di sakku ndimbal te la nga leen di defal waru la yërmandee tax aku baax te ku dikkul ci yow li mu bëgg du ko am bari na lool ay piriwaay loolu ci gën gàtt lam yalit amul doom walam yuulat amul ndey ak bàyyi walam yakun lahu kufuwan ahad niruwul kenn kenn niruwul diwa niroog diw taxawaay diwa niroog diwub xeesaay ñoo niroo ñaw mbubb ñoo nirooy bët ñoo tolloo loolu sama borom tabaraka wa taala subhanahu an dalika kullihi ah ba mu ko defee mu ne ko waaw léegi nag bindal ne muhammad moomu le sama jaama sama bi sama ndawa naka la ko def xalima ga rot sujoot di jooy ba am téeméeri at am na ñu ne téeméeri junne at yëkkati boppam ne ko yow sama borom tabaraka wa taala yow sama sang man xam naa ne kenn lu buur ku dul yow waaye waaye jii tudd muhammad nga boole sa tur ak turam lëkkale ko kooku kana sama borom ne ko xalima gi nanga nga tegginu maa ngi génn ci sama tedd nga ak sama màgg nga sudul woon muhammad moomu ngay laaj du ma bind aras du bind kursiyu du ma bind asamaan du ma bind suuf du bind àjjanna du bind safara du bind guddi du bind bëccëg du ma bind dara lima bind yépp na ma ko ko terale moom moom nga may laaj sallallahu ta xalima ga man di te jàpp ko ngir neexitu turu muhammad sallallahu alayhi wa sallam sama borom yekkewal ko maanaam digal ko ne ko nuyool muhammad nuyul muhammad moomule naka la ko def xalima ga dal di ne assalaamu alayka ya muhammad sama borom dellool ko nuyoo ne ko alayka assalaamu ayuha alqalam moo tax ñu ne fa lihaada saara salaamu sunnatan nuyoo bu jëkkam maanaam jëkkaduyoo sunna la delloo gi farata ndax nuyoo ba sama borom tabaraka wa moo tontu sama borom dellu wax xalima ga digal ko ne ko na nga bind ne xalima ga tiib lox ngir tiib ba am junni at sama borom ne ko bindal li nga xam ne namm naa ak nekkam ba ba bés penc ba xalima ga di bind ba sama borom mu sob sama borom mu bind ne doomi aadama yi nga xam ne aadama moo leen jur wala koo xam ne kii dafa bàyyi ko ci ñu aadama jur képp koo xam ne ki topp na yàlla yàlla dana la dugal ajjanna képp koo xam ne mooy nga ko suñu borom tabaraka wa taala dana la dugal safara bindu loolu ci xeetu sayidina ibrahim alayhimu salaatu wassalaam ak xeetu yontu yàlla isa ak yo xeetu yontu yàlla muusa ba ak si ci ñun ñi nga xam ne ñooy ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallama xalima ga bind ne képp koo xam ne ci xeetu muhammad mooy nga yàlla yàlla dana la dugal safara soo toppee yàlla mu dugal la ajjanna ba nga xamee ne def na loolu am lu woote nga ke sama borom tabaraka wa taala moo woo xalima ga wax ko ne ko na nga tegginu xalima ga dellu tiit na tàcc xar ca la ñu jóge képp koo xam ne ki yaa ngi sat xalima pour bëgg ci bind il faut nga xar ko il faut nga dog bopp ba mu ne ko بندلنا أمة مذنبة ورب غفور خير لنو وخمن سيري بكار بارنا وعي ماني تنبور لا بو خمن بي لنو دف سي بكار دانا لنكو ديغل تسمو جيجي يرمدكي مسد وج يلن يلا جيغل جيغل لن لله نور يكون الله مودعه أبا الورى طاهرا في الطاهر الشيمي وكان شيف وصي الأصل منتقلا من خيرة كرم للخيرة الكرم حتى انتهى بالشموس النور محتقرا لقادة العرب فهر الجلة النغم سيد الحاج مالك نانا كاو كيف اغلير غو خمنه سون بروم تبارك وسني بروم تبارك وتعالى موي كيكو دنكاني تي مو كو دنكوني موي كيما خمنه موي بايو بنده في موي مام ادم وكان شيخ وصي الاسم منتقلا min xiiratin karam min min xiiratil karami leer ga ba nga xamee ne na ci suñu maam aadama ba dem ci xawwaa mi nga xam ni moo doon soxnaam ba mu ca bàyyikoo ca chiisa la dem maam xawwaa nee na ñu ëmb na ñaar fukki biir bu ci nekk dafa daan nekk seex ba mu des bi nga xamee ne mooy bu chiisa bi sama borom ne chiisa rek laa ciy def ndax mi nga amee leeru muhammad sallallahu alayhi wa sallam dooy na ko ñaareel ndax leer gi dara xajul moom ci feneen moo tax mu ëmb siite jur ko moom rek bi sababi naka leeru sallallahu taala alayhi wa sallam booba ngi ci moom xata ntaha ba daytalu wa yemi an nooru leer ga muxtaqiran mbir moom nekkam di aji xeet bi sumuusi mu jëm fan li qaadatil urbi jëm ci sangi arab fihar giir fihar al jillati ña di way mag an nuhumi ña kenu وغير الشيث فما, وغير الشيث فما تاتيه منفردا حواء تكريم نور غير مزدحم نقول موي لولو ني واخون ني شيفا لما حواء امب نخ ليرو صلى الله عليه وسلم جينا كون تي الصلاة على النبي محمد وعلى مدى محمد تسبي حبا فما أثنى مقام محمد يا لهذا الوائل لم يصلها إلا الصلاة على النبي محمد ولن بذكر محمد قلب الشديد لا تجد في قلب بذكر محمد يا لهذا الوائل لم يصلها الصلاة على النبي محمد واسر لي محمد بين العتاي عن البصائر قط وجه محمد للعالمين الرواحي جل الأبناء إلا الصلاة على النبي محمد واخلص لآل محمد حبا ترى عين الهدى في حب آل محمد إلى بين نوائج لم يظهر إلا الصلاة على النبي محمد وأذن لموت محمد وفاته من ذا الذي لم يبكي موت محمد إلى العالمين لوائد لم يبكيها إلا الصلاة على النبي محمد وحدا لموت محمد وفاته مبدا الذي لم يبك موت محمد للعالمين العالم لم يبقها إلا الصلاة على النبي محمد إني قديم محمد وعبيده حسبي بأن قديم محمد للعالمين العالم لم يصلها إلا الصلاة على النبي محمد ابني لأم محمد يا ربنا لم نخش من أول بحب محمد لهذا فينا نوائج لم يرضها إلا الصلاة على النبي محمد أسلمت وجهي للذي فطر السماء وعسى الهلا والأرض رب محمد لهذا فينا نوائج لم يرضها إلا الصلاة على النبي محمد أسلمت وجهي للذي فطر السماء فأتى الهنا والأرض رب محمد إلى ظلمي طوائل لم يمضيها إلا فطرت على النبي محمد أسلمت وجهي للذي فطر السماء فأتى الهنا والأرض رب محمد إلى ظلمي طوائل لم يمضيها أسلمت وجهي للذي فطر السماء وأتى الهلا والأرض رب محمد لواجب من رأيك لم يصلها إلا الصلاة على النبي محمد وقفت عند الباب وقفة خاضع متواصلا مستشفئا بمحمد للآثمين الأوائل لم يرى

ووقفت عند الباب والصدعان متوكلا مستافعا بمحمد للآبقين نوائج لم وقفت عند الباب وقفت خادئا متوكلا مستاسئا بمحمد للآدمين نوائج لم يأتها إلا بلغت على نبي محمد إني كثير الذنب ما لي حيلة قدمت بين يدي مدح محمد للآدمين نوائج مرسيد بما يرجو من المولى بجاه محمد يرجو من المولى بجاه محمد يرجو من المولى بجاه محمد يرجو من المولى يرجو من بجاه محمد يرجو من المولى بجاه محمد يرجى من المولى محمد يرجو من المولى بداية محمد يرجو من المولى بداية محمد والآل والصحاب من أزواجه ومن انطى يوما لآل محمد يرجو من المولى بداية محمد يرجو من المولى سلم كان يا هدي مبدا كبدا على خلاف كان من ذوي الخود ولا بغداد الارض ولا اشجار املا وفما يلام

إكرام المؤتمين يهدي مبردا كبدا على خلاف الأرض كان من ذي الهروب مغنى جبل عدا ثم باوا والباء أدبي أمن القاهرة الله رلم ودار بالغنم وأتى بصيرا مخبرا جل جلمك يا لمزم بصفات يسلك ما بأمر هلاك وكفاك موسى لم يصل متوسلا بك في القيامة مهتم بإماك والأنبياء وكل خلق في الورى ورسل والأملاك تسلواك لك معجزات عاجزت كل الورى وفضائل جلت كنيسة وكويتا مغازيه يا ربي مبردا كبدا على خلاف كان من ذوي الخلود يا إنما بظاهر ما زالت تبت يا أتنا إذا وإذا أبدا على خلاف الأرض لنا من ذوي الخلود من دكتاني أول مقدار بستمك مدي وأفسدني سام الفراق بمرسدي وحبي في في مسيد تاكدي صارت له الأسري أبو محمد كنت يا الممدو وسالك أهلا ماضي يتوسط له وواد له مسترد ترنا ويا بعد متابع زل من نور الأمام مرنا فيه يا بيه مبردا كبدا على خلافنا كان من ذوي الهدوء آه، يا المكان جن بلد بي بحر الشريعة ختمة nga xam ne amal basita taal بلد بي شمس النبوة أشرفت دامت ولم تر في الوجود بلد بي ذات في مكة جيلالي ينتلمد ما كان فيهم قدر مجهول بأبتار نبي محمد قدسا وأكرم بالمدينة خيرا بكل صحب لم نسمع لهم بجميع صحب الأنبياء المسيرا واجل فهد الأسافل لم ينقص فضله بل زادهم بين الورى ربنا الأقدم على خلاف كان من ذوي الخدود لما أتى آل سياتي سأل أي جماعة يانا فما هل بالجلوب فما هذه يهدي مبردا كبدا على خلاف سانا من في الخدود اللهم صل وسلم عليه وربت دينا يا علم الهدى شيخ عمر نجورك اي ويو سنجي وربت دينا كما استقامنا يلن عادك من خليل جاري من عند ربك قاتل داداك والفتح جاك يوم فتك مكة ونسر في الأساب خذافك هود ويونس من باك تجملا وجمال يوسف من دياي سناك وساء متى دعاني ساء سيدات زمان سمت أرمانا كان أنا سمت nag bokk day. nag bokk day. ca dëgg-dëgg. ca dëgg-dëgg. kenn xamu ko. kenn xamu ko. ku dul yàlla. ku dul yàlla. doy na ko. doy na ko moom bokk. moom bokk ak tedd nga. ak tedd nga li yàlla wax. li li yàlla wax. ci xaqam ci xaqam. yàlla nee na. yàlla nee na ngeen ma ragal. na ngeen ma ragal. ak bokk. ak bokk di ngeen xam ne. ngeen xam ne lu ngeen di laaj. lu ngeen di laaj ca ngeen koy laajal. ngeen koy laajal ak geño. ak geño defal ma nangam. defal ma nangam ak meen. akuk meen defal ma nangam. defal ma nangam akuk bokk. akuk bokk defal ma nangam. defal ma nangam nee na ñu bokk nee nañu bopp ba ko sama borom bindee ba ko suñu borom bindee te nam ko wàcce nam ko dafa bañ ne bopp dafa bañ wala nee nañu mu jooy wala nee ñu mu jooy ne ko looy jooy yàlla ne ko lan ngay mu ne ko ragal ku ma dox mu ne ku ma dox mu ne ko mu ne ko géñ naa ci sama tedd nga sama tedd nga man yàlla man yàlla ne képp ku la dox ku la jokk ku la jox danaa ko jox danaa ko jox ku la dog ku la dog danaa dog danaa dog sama diggante moom ba bés penc ndax kontaan nga mu ne ko kontaan naa loolu doy na ma mu ne ko wàccal mu ne yàlla ne ko wàccal nag boo am bokk dara wàcc yonent bi ne nee na yonent am nay am nay xur. am nay xur. ak i kamb. ak i kamb. ak i bënn. ak i bënn. yu nekk. yu nekk. ci biir safara. biir safara. yoo xam ne. yoo xam ne. kenn du ca dem. kenn du ca dem. lu dul kuy dogu bokk. ak kuy mooy sa ñaari waju. ak yal nañ ci yàlla musal. yooyu tàmb ci lañ ko xaar. yàlla musal musal. lépp loo xam ne suñu borom tabaaraka wa taala digal nañu ko. mais lépp loo xam ne lii. sunu borom tabaraka wa taala digal nanu ko. tere nañu safaan ba. tere nañu safaan ba. te biral na ko. te biral na ko. biral goo xam. biral goo xam ne. kenn réerétu. kenn réerétu. ni ki wuruj. ni ki wuruj. ak noono. ak noono. ak dogonte. ak dogonte. ak tooñ. ak tooñ. ak bokkaale. ak bokkaale. ak lépp loo xam ne. lépp loo xam ne. niru na loolu. niru na loolu. ci liy yiir jaam. ci liy yiir jaam. ak di ko dog. ak di ko dog. ba du àgg ca yàlla. ba du àgg ca yàlla. wala mu àgg. wala mu àgg. te ngërëmal yàlla. te ngërëmal yàlla. lu màgg la. lu màgg la. yéen mbokk yi. yéen mbokk yi. maa ngi leen di wattandikuloo nee mi ngi leen di wattandikuloo. tooñ. tooñ bu leen tooñante. nee bu leen tooñante. sama borom. nee sunu borom. tooñ sax. tooñ sax. xaramal na ko ci boppam xaramal na ko ci boppam. def na koy. def na koy muy lu ñu xaramal muy lu ñu xaramal. ci suñu diggante na ngeen topp yàlla. na ngeen topp. yàlla yàlla. topp leen seen yonent. topp leen seen yonent. te itam ngeen topp seen i kilifa. ngeen topp. ñi nga xam ne. ñi nga xam ne ñoom la yàlla. ñoom la yàlla. méngale seen i mbir i mbir. ci wàllu diine wàllu diine wàllu adduna wàllu adduna. da ngeen sàmmonteeg nga xam ne. li nga xam moo nekk seen diggante. moo nekk seen diggante bu leen ko sànq. bu leen ko sànq. sànq ko. sànq ko perte gu rëy la. perte gu na ngeen ragal yàlla. na ngeen ragal yàlla. da ngeen sellal. na ngeen sellal. seenug bokk seenug bokk. tey xam ne. tey ngeen xam ne. defarug bokk defaru bopp li ci nekk ci ngëneel li ci nekk ci ngëneel kenn mënu ko teg kenn mënu ko teg doy na rek doy na rek nekk Seydina Jibril Seydina Jibril ngéeju woon ngéeju woon ngir nekk ngir nekk doomu aadama doomu aadama ngir ngir la ca nekk la ci yool yu rëy yool yu ci yàlla ci yàlla bokk na ca bokk na ca defaru bokk defaru bokk bokk na ca ne bokk na ca julli ci mbooloo julli ci mbooloo bokk na ca bokk na ca nandal ku mar nandal ku mar bokk na ca bokk na ca leel jirim leel jirim bokk na ca bokk na ca seeti ku feebar feebar bokk na bokk na ca. gunge ku dee gunge ku dee ba ca sëkkee. yii daal si ma si nekk doomu aadama mën ci def leen. na ngeen jokk seenu bokk. te it nee na ngeen jokk seenu bokk. na ngeen nekk yéen jaami yàlla yi di mbokk. na ngeen nekk yéen jaami yàlla yi di bokk. na muñ te ngeen di muñalante. na ngeen muñ. tey muñalante te ngeen xamit ne sama borom tabaraka wa taala nee na jullit yi ay bokk lañu tey ngeen xam ni sunu borom tabaraka wa taala nee na jullit yi ay bokk lañu ah liimaan nag nee na liimaan nag defe naa moom la ñuy wax ku gëm moom la ñuy tudde croyant xaw ma ne liimaan ku gëm moom la ñuy tudde croyant croyant waaye am na ñoo xam ne ñii ñu ngi koy bëgg a jaxase waaye am na ñoo xam ni ñii nag ñu ngi koy bëgg a jaxase. waaye dañuy wax ci seen bànneexu bopp rek. waaye nee dañoo wax ci seen bànneexu bopp rek. waaye ki wax wax ji ñu di ko nettali. waaye ki wax wax ji ñu ko nettali. ñoo ko bëgg a tëral feneen. ñoo ko bëgg ñoo ko bëgg a tëral feneen. waaye xam nañu bu wér ne. waaye xam nañu bu wér ni ki wax wax ji. ki wax wax ji fa ñu ko bëgg a tëral fa ñu ko bëgg a tëral. tëraluñ ko tëddu fa. dañu nekk ci jamono nag boo xam ne. nee dañoo nekk rek ci jamono boo xam ni. termidi yaana. termidi yaana. lu neex waay mu wax. lu neex waay mu wax. ndax kenn ku mu ci doon. ndax kenn ku mu ci doon. moo xam ci diine ji la. moo xam ci diine ji la. wala ci pom yi la. wala ci pomi. doon télé wedd yàlla la. doon télé yàlla am na ñu la wër. am na ñu la wër. gëm la. gëm la. rafetalal la. rafetalal la. la nga nekk la nga nekk. ànd ci ak yow ànd ci waaye kay yàlla wax na melaw jullit na muy mel. waaye nee yàlla moom. wax na melaw jullit na muy mel. ci alquran bari na ci lool mais bari na ci lool بارينا alquran na julit yi ne bari na ci lool mais bari يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين لا يلو إن كنتم مؤمنين كونديسيون لو اندي نغام نك يدي جوليت يالا نك تامبالي دي فرام فانتي نان لا جوليت دي مال اك كوديت جوليت mu ne innamal muminuna yéen gaañu ndegam da ngeen ci werante man yàlla mi bind liimaan xam njullit lan la ak kudib jullit ci man yàlla dëgg-dëgg alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه وينفقون مما رزقناهم من كوخه الله ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا yàlla na ñooñu ñu di jullit dëgg dëgg ci man yàlla. mais kat yàlla moom ñii mu cité tudd leen ci alquran